xanaa di leen baaxee lenn ci ay ndenkaan rek dafa wax ne ñeent a ngi nii ñoo xam ne fexeel ba bu leen wor sa borom mi la bind ngir nga jaamu ko sa yonent mi tax ñu bind la ngir nga roy ci moom sa diine ji ngay jaamu yàlla sa réew mi nga dëkk ñeent ñi bu leen leen trahir bu leen leen wor ñeent a ngi nii ñoo xam ne bu leen leen sori bu leen leen sori seen bopp sa baay sa ndey sa mbokk mu góor ak sa mbokk mu jigéen ñeent a ngi nii ñoo na nga fexé ba bu len len xagn sen teranga sa soxna say dom say mbokk ak say xarit ñent ngi ñoo xamne ne waruñoo xam sa nakari deret sa sag xol jirim miskin faqir ak ku tawat ñent ngi ni ñoo xamne ne war nga fexé ba bañ leena merlo borom xam-xam kuy jàngale xam-xam ku ragal yàlla akub mag ñent ngi ni ñoo xamne ne ba bul dox sa ak julli jàng alxuraan tudd yàlla jokk mbokk ñeent ak ñi ñoo xam ne fexeel bu leen leen def mukk rëy wor kañaan ak coxor ñeent ngi ñii ñoo xam ne na nga fexe ba làmbaayoo leen def ko def leen muy seen jikko muñ lewet xam ak tabe ñeent ngi ñii ñoo xam ne na fexe ba moytu leen bànneex seytaane bakkan ak àndandoo bu bon ñeent ngi ñii ñoo xam ne fexeel ba bul xaritook ñoom fenkat ab sàcc ku ku iñaan ak koo xam ne boppam dong ko ñor fexeel ba ñii nga ànd ak ñoom kuy def te yàlla tax koo xam ne lu mu diggee def ko ku tabe ak ku dëggu fexeel ba lii nga baril ko loo ci def doyut saraxe ñaan sàkku njëggal ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñeente nga ñi ñoo xam ne loo ko gën a néewal moo ci gën lekk nelaw tayel ak wax ñeente nga ñi ñoo xam ne del muslu ci yàlla musal la ci ñoom njàqare tiis lot ak nay ñeent nga ñi ñoo xam ne góorgóorlul ba bul ànd ak ñoom ab jaaxil werantekat ku doyee di ak ku amuk jot ñeent nga ñi ñoo xam ne fexeel ba daw leen bul ànd ak ñoom mukk ab turiyan ab workat kuy tappale akum naafiq ñett nga ñi ñoo xam ne bala nga leen a jël na nga ca na ca teey lem diine soxna ñett nga ñi ñoo xam ne fii ak tàggalikoo ak ñoom doo am jàmm jax-jaxee xol bor àndandoo bu bon ñett ngi ñi ñoo xam ne boo leen yeexee seen njariñ day dem loola mooy wuy aboote euh, jaale koo xam ne dafa faatule ak julli timis ñett ngi ñi ñoo xam ne dinañ ñaan yàlla musal la ñoom def katu lu def katu lu araam kuy dog mbokk ak kuy lekk alali jirim ñett ngi ñi fexeel ba bul ànd ak ñoom dof ku amul yitte ak ku ñàkk kersa ñett ngi ñi bul déglu seeni wax fenkat rambaajkat ak kuy seere neen ñett ngi ñi ñoo xam ne fexeel ba bul ànd ak ñoom ku iñaan borom bët bu aay koo xam ne day merlu ay waajuram ñett ngi ñoo xam ne fexeel ba bu bu taq taqoog ñoom kuy sàmmonteeg waxtu julli juróom ku tabe ci alalam ak ku gërëm loo ñaari juróom yii ma la bëgg wax bul ko laaj nit at jirim bul ko laaj nu sa baay faatoo wala nu sa yaay faatoo wayjur bu la ko laaj nu sa doom jafaatoo ndax ñaar yu laaj yooyu mën naa jeqiwaat aw diis nit ku amutub liggéey bul ko laaj ci bir mbolo lutax tax yo amana sabab sa na ko rusa wax man nga waruloo ku ñàkk bul ko laaj ci bir mbolo ndax bëgg nga ko la dimbali bul ko laaj dimbali ko rek léeg nga gis nit mu am màndarga ci kanam ab legget wala sik su nek ci kanamam bul ko laaj loolu ko tek ndax amana sax jëm na ko neub da ko muntu neub rek gan bul ko laaj ndax bëgg nga ma jox la rek wala ndax bëgg nga ma jox la naan andil say talaa nga jox ko rek ndax boko amana nga xañ ko bul jël sab xarit di ko ci biir nit ngir bëgg ñi ci dess kontaan ndax dana metti lool ci mom xaritam di ko toroxal ci biir mbooloo waxtu nek nekk day jël sa bop di ko tek ci place ña des ña ci dess ngir di xam seen yëg borom xam borom nit ñu am xel ñu wax ni tawat tawat jombul kenn yalla mo koy seddelé waye faju ci loxo nit ki la nek sey mo xam am soxna wala am borom kër so borom koy seddelé cër la waye na nga yoré soxna la wala na nga yoré borom kër ba boku décision la bu nek sa loxo kenn ku nek amna nit ñu ne wet tanno leen waye yalla boole yalla boole leen ci sa dund mëno ci dara waye na nga leen di dox na nga leen di sàmme na ngay sàmme seen digënté ak ñom décision la bu nek sa loxo kon li lay seddelé te te du la ci laaj sa xalaat jox na la décision bu nekk sa loxo ca na nga ko yore lii ay ndénkaan la yoo xam ne euh, yu mat a bàyyi xel la.